mission billet au Sénégal. RFM matin 7h41 euh, sunu gan Cheikh Seck salam waaleykum salaam suñu Babacar. yaa jiite syndicat bu wax SDT 3S ci vois louis syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur euh, social danoo yëg ni fan yi am na lu ngeen di wàcc ci dakkal waaw Hadj Babacar xam nga bu ma nuyoo nuyu Georges nuyu auditeurs yi nga xam ni ñoo ngi ñuy déglu ak téléspectateurs yi ak ñekk ñi nga xam ni via Facebook ak réseau yi euh, di nuyu aussi euh, travailleurs yi moo ne travailleur jiital ci travailleur de la santé boole ci ñëpp ñi nga xam ne aussi ay liggéeykat nu donc euh, di nuyu ñëpp di rafetlu aussi invitation bi Euh, boo gisee tey ji euh, fan yi euh, ñu toog parce que dafa am loo xam ne ci suñu secteur bi fi mu jëm doy na waar trop donc ñun en tant que organisation syndicale ñu dajaloo ci benn cadre bu wax cadre unitaire des travailleurs de la santé et du secteur social pour la pour la justice sociale euh, regroupé ci juróomi organisation syndicale euh, depuis nak avant élection yi dañu doon waxtaan ak autorité yi déposé suñu plateforme au niveau de la du ministère de la de la fonction publique ak ben préavis de grève ak euh, ministère de la santé ñu commencé won di waxtaan bi ni waxtaan ci point yu bëri dina ci ci wat ci kanam xëñ ni point de revendication yu concerne fonctionnement hôpitaux yi le concernement fonctionnement ou zone opérationnelle yi muy district yi centre de santé ak poste de santé mu système de santé dans sa globalité ak li nga xam ni moo jëm ci suñuy plan de carrière parce que ku nekk aussi euh, bu fekkee ni yaa ngi yaa ngi dugg ci lenn di ci jàng ñaan nga yàlla aussi egg fa nga xam ni moo gën a kawe mais boo demee ba jàng ba am diplome yooyu ñoo gën a kawe li ci dess moy administration meuna reconnaître lolu d'autant plus que diplôme ngay am sur le plan international de ko reconnaître donc ñu war le meuna reclasser créer ay corps d'accueil ci biir fonction publique sénégalaise ñu gis ni lolu aussi dafa soxé lenen li aussi jëm ci li ñuy wax mbirum statut du personnel mu wara meuna harmoniser lenen li jëm ci aussi ci conditions yi nga xamni ci lañuy liggéey parce que li gëna am solo ci liggéey moy ñi nga xamni ñoy fajj et tey jii li gëna a ci système de santé mooy personnel su ma nee personnel nag personnel qualifié la boo demee tey jii saa yoo amee accident wala mu am situation difficile ngay xam ci condition yi nga xam ni euh, personnel bi doyul ñaareel bi aussi mooy ci équipement yi da nga ci gis structure yoo xam ne tey jii ay bâtiment rek lay doon mais boo xoolee ba ca biir équipement yi ca war amul. loolu loolu la sax laa ci laa la bëggoon a. Euh, mhm. euh, laaj tuuti ndax euh, yéen ñiy faj yéen a ngi jàmbat waaye ñiy fajoo leen gën a dee. Mhm. démb rek fii ci RFM sunu ndaw la nekkal ca Kolda mi ngi ñuy mhm. nettali na hôpital ba def ci melokaan daanaka dara amu fa hôpitalu senegal nga toog ci atum 2019 ñu naan la manqué na wëtteen wala bandaas loolu moom. Nous nu Sénégal def ba ba tollu fi waxtu wi. wa moy moy absence moy absence de politique sanitaire xam nga politique da ngay planifier da ngay xol ci existant euh, bu fekkee da ngay def politique sanitaire euh, ci li ngay planifier day basé wu ci indicateur sanitaire yi par exemple da ngay toog nga ni tey ji ay feebar ñoom ñoo ñoom ñooy dama pali bëri na wala nga ni euh, lu mel ni ay bilharziose bëri na wala nga lu mel ni onchocercose bëri na wala nga am na ay épidémie euh, par yenn ay méningite euh, déclaré wu wala ay rougeole ci boobu nga xam population bi nga xam ne mooy population cible wala tey gi nga ne xam ne mortalité maternelle et infantile am na su boobaa da nga naan ñan ñooy cible population bi nan lan toll ak lan mooy seen besoin ci besoin yooyu dans le passé plan de développement sanitaire yi nga xam ne moom ci politique dañ ko daan def au niveau d'abord opérationnel c'est-à-dire ci suuf la daan commencé dem mais maintenant léegi boo xoolee tout l'argent que les bailleurs donnent dañ ko centraliser au niveau de Dakar et sans centraliser au niveau de Dakar c'est la bureaucratie qui va se développer donc nous ñi duñu xam li nga priorité par rapport à ces à ces ak ci zone yooyu ba tax na boo li nga wax paradoxe entre li nga xamni mom le ministre de la santé di wax wala autorité yi diko wax diko Que budget bi nañ tel ou tel man dama def ay man toujours damay am toujours ci chiffres yi di étudier évolution budget du ministère de la santé effectivement si xolé même en 98 budget ministère de la santé 28 milliards la en 2012 parce que bob moy référence <coughs> régime bi nga xamni mo fi 120 milliards la won bu ñu ba 2019 egg 200 milliards or vous les 200 milliards si 120 milliards ça veut dire que de 2012 à 2019, 80 milliards milliards yokku nañ fi mais paradoxe bi moo di indicateur sanitaire de dafa gën doy c'est-à-dire conditions yi nga xam ne accueillir malade yi dafa gën doy par exemple, si yi li gën a garaaw sax mooy da ngay da ngay am sa malade am accident nga yenn ko yóbbu ko hôpital ñu ne la place amul c'est devenu maintenant la règle. Ce mmh. qui indi moo c'est orientation budgétaire parce que tey jii ben na jour ñu interview ma dima laaj naan budget ministère de la santé il y a 200 milliards la won wàññi nañ ko man problème bi du wañi budget problème bi moy même si des 100 milliards mu am une utilisation efficiente et rationnelle de ce budget ñun loolu lañuy wax. mais bailleurs yi nga wax ne euh, ñom li def peut-être ci dakar la gëna a euh, visible que yeneen euh, localité de l'intérieur du pays loolu bailleurs yi la wala li ñu leen la. non non du bailleurs yi xam nga bailleurs yi ma dama lay jox benn exemple man sama man man man bi may njëkk bi may bi may doog a dugg ci santé tambalan Tamba lan ma affecté voilà njëkk servir bu njëkk dañ daan ñëw par exemple ñëw ci benn poste de santé c'est-à-dire dañu décentraliser woon xam nga c'est-à-dire tey jii dañuy ñëw ñu ne bon zone bi zone da nga polariser par exemple nga nekk ci benn poste de santé ñu ne la polariser nga par exemple ay 30 villages wala 40 villages lan mooy besoin population ñaata xale ñoo fa nekk yu am zéro cinq ans yan maladie ñoo leen gën a sonal ñu avons bon rougeole par exemple ngas wala ay poliomyélite diphtérie wala affaire yu demoon ñu ne léegi intégré nañ wax programme élargi de vaccination ci biir programme élargi de vaccination boobu xëy na état amul moyen pour logistique ñu dem bu ñu demee mu ne soxla naa temps en matière ICP bi par exemple infirmier chef de poste bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci village muy communauté rural beeg ñu ne pour mu mën dem stratégie avancée c'est-à-dire jégu ci benn poste mën a vacciner feneen soxla nañ par exemple moto benn Yamaha 125 Yamaha 125 ñu ne la par exemple 1 million 200 lay jar xam nga ñu ne la soxla nañ glacière parce que il faut nga garder vaccin yi pour mu bañ a yàqu ñu ne la soxla nañ aussi ku ñuy appuyer mooy formation relais yi loolu lépp bu ko budgétiser ñu ne temps la ci ci xaalis bu njëkk UNICEF mooy ñëw mu ne loolu lépp moo koy jël en charge mais ci zone opérationnelle ba la koy la koy la koy la koy jëlee su ko defee day nekk loo xam ne day egg ca ña nga xam ne ñoom ñoo ko soxla mais maintenant les programmes c'est des programmes par exemple créer une direction yo xam pratiquement tout l'argent est centralisé là-bas c'est-à-dire que maintenant décision ci kaw lay jógee amul déconcentration ni décentralisation xam nga ba xam légui bo démé tey jii man par exemple ma def de la bureaucratie limay ñëk wax bu nu indi les par exemple budget xam nga man may man may élaborer les lignes budgétaires ma xalaat ni par exemple logistique soxla nako ma ne bon nañ ma jëndal benn oto boo xam ne pour des déplacements de 40 40 millions je je mets en place un dispositif de mission de supervision par exemple chaque mois damay dem temps lan may fay dinaa dem ci oto parfois sax même même même doo dem comprendre ci yooyu la ñuy wax ni par exemple argent bi bëri na mais utilisation efficiente bi moo demeewul noonu wala nga ni tey damay organiser ay hmm. séminaire tey boo demee tey partout ay séminaire rek séminaire séminaire te li ñuy réfléchir dañ ciy réfléchiraat déwén ñu ñëwaat réfléchiraat année bi si ce sont les mêmes même chose la ñuy ñëwaat tegaat bailleur bu ñëw ñu justifier par rapport à ces à ces dépenses pour revenir ci ci ci ci li ma doon wax sànq différence entre 80 millions yi am ci secteur 80 milliards 80 milliards excusez-moi yi nga xam ne na paradoxe bi moo tey jii xam nga hôpitaux yi structure de référence yi nga xam ne jël maladie maladie depuis 10 ans demal nga xool budget ministère de la santé nga xool subvention c'est-à-dire li état di subventionné hôpitaux ndax un franc yokku na ci xam nga budget bi dañ la yokk na 80 milliards. ñom kay dañuy dañuy amel l'hôpital yi. foofu dinaa jëm foofu seen programme yi dinaa dinaa jëm fofu dinaa jëm foofu. dama lay euh, war rek CMU ak euh, plan Sésame ak. Euh, dinaa jëm fofu li njëkk modi d'abord bu ma nee yokku naa yokku naa yokku naa xaalis ci budget bi budget bobu dafa wara jëm ci maladie jëm ci maladie moy lan pour hôpital parce que man je suis membre du conseil d'administration. fu xaliss bi dugg. wa fofu la jëm l'hôpital général de Grand-Yoff bi suñu y de cela presque presque 10 ans sunu budget eggul won 4 milliards parce que le nombre de malades est doublé, doubler donc nous dañu augmenter sunu budget presque ba 9 milliards et quelques de, 8 milliards 900 presque 9 milliards mais ci 9 milliards yoy xam nga état lu muñu état lu 1 milliard 400 lañu doon jox depuis que mu mara mat juroom ñaari même montant bi lañuy tek motax ngeen séral lepp itam ngir mëna fayé ko xaliss non non mais mais aussi xam nga que aussi mëno ñëw parce que man je préfère payer am condition yu bax ci fajj que ma ñëw ñu ne la dara amul hôpital parce que fay sa xaalis ba pare parce que nit ñëw na hôpital man gis naa benn nit mu indi doomam pédiatrie hospitalisé ko saa yu xëyee ñu bindal ko ordonnance kilométrique bu toog bu toll ci vingt cinq mille wala wala ñu bindal ko ay analyse mu jël ñu jël prélèvement di ko yóbbu ci beneen structure pour ñu defal ko loolu à son temps nit ko dafa xëy benn journée moom il préfère être dans une structure bu pare sax ñu ne ko la ngay faj que ñu koy def loolu parce que loolu mooy loolu loolu loolu xam mais dama ni quatre milliards yooyu ñu yokk ñoom ñoo loo wax ñoo loo war a wax ni fan lañ ko orienté c'est-à-dire kooku ñi nga xamni ñoy def arbitrage budgétaire bi ñom ngay laaj ci augmentation 80 milliards yooyu yokk ci fan la jëm c'est à eux de dire fan la xaalis bobu dugg mais ñun gisuñu ko et c'est ça la vérité ci condition yu yu mais lolu sax hum. grawul bu fekkone sax par exemple mom wax na naa ci mbirum personnel bi xam nga mënoo wax ni da ngay da ngay da ngay def politique de santé ñi fajj di personnel qualifié do recruter tay ji même dans le cadre de la formation li gëna dangereux fofu la nek tay ji bo démé NDSS nga xamni pratiquement moy former l'écrasante majorité en dehors de la faculté de médecine des agents de la santé tayji bo démé les techniciens en anesthésie, moy ñi nga xamni ñoy maladie pour opérer à part le concours spécial qu'on a organisé y a deux ans do am ay sortants parce que organisé wuñu concours bo démé même ñun ñi nga xamni suñu domaine dans le domaine de la physio ubbi wuñu concours bo démé ci ci ophtalmo ñi nga xamni ñoy technicien en ophtalmo même au niveau des labos amul comment voudriez-vous nga yow da ngay def politique de santé au même moment ñi ngi ñuy affecté ay nit ñoo xam ne amuñu benn qualification c'est-à-dire c'est des clients école privée yi bëri nañ fi léegi aussi non non mais mais li mu bëgg a xam moo di loolu yëpp bokk ci li nga xamante ne da ngeen koy jàmbat doon ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di mhm. kilifa yi fonction publique wax nga ko sànq mhm. est-ce que dañ leen tànqamplu wala da ngeen jàpp na xëy na élection yi moo taxoon rek ñoom ñu doon waxtaan ak yéen pare ci fàtte leen mais looloo graaw c'est-à-dire xam nga man dama ni amatuñ administration xam nga administration mooy lan mooy nit ki bu la bindee sax nga am courtoisie répondre ko c'est la règle ñun en tout cas bi ñuy dugg dans l'administration loolu lañu jàngal Abdoulaye Diouf Sarr ñetti lettre laa la wax yoo xam ni période bi sax dépassé na ay un mois deux mois ay lettre de rappel tontuwuñu sax ministre de la santé ministre de la santé li gën a graaw mooy ben benn benn jour seen benn collègue bu nekk ci benn émission interpellé na ko euh, pour ne pas le citer Pierre Edouard ci ci cette tv ni ko mais mais ñëw syndicalistes yi ñu ngi naan bind nañ la lettre mais yow tontu woo leen te yow avant élection yi da nga ne leen woon ñu bàyyi ba élection yi passé ngeen continuer les négociations boobu ak léegi-léegi mu war a un an xam nga lu mu tontu Pierre Edouard Faye mu ne ko non mi ngi discuter ak syndicat yi kooku ni ko ban syndicat ngay discuter mu ne nee na ngi discuter ak Mballo bon bëgguma dugg ci yenn détails yi ak affaire damono ça veut dire que ñoom ñooy ñooy parrainer yenn nit ñi nga xam ne tey jii du nous xëyee hôpital nous ñu yendoo hôpital bëgguma dugg dans les dans dans les détails ça veut dire que ils ont ils ont mis en place un plan ce plan boobu mooy détruire tout ce qui est ñëpp ñi nga xam ne tey jii dinañ dénoncer wala ñu wax loo xam ne or système bi ñun nous fi ay gan et on a choisi ce métier personne ne l'a choisi pour nous donc du ñu nangu kenn di ko yàq bu fekkee nak dafa yaakaar ni ñun dañoo war a nekk benn wiwi wala ñoo xam dañuy ñëw rek ñu ne ko gongo yalla xam ni sérieusement parlant moi je préfère quitter ce secteur et aller faire autre chose que d'être quelqu'un qui sera compromis. une situation malaat yeeg seen i euh, il faut que nous wax ci euh ndax euh, bërki Dembo Ndiaye waaji nga xam ni mo accidenté accidenté euh, tank bi di nàcc ñukoy koy jaabante l'hôpital ba dareetam manké mu fatu ñu ni sax amna ci ben kilifa bu nek ci ben l'hôpital ministère bi sanctionné nako ko waaye fekk na waa ba jaabante googu nit ñi di jaabante ci l'hôpital yi ak li ñu naan am na SAMU social euh, noonu la mooy euh, ñi yori ambulance di jëli nit ñi yooyu mhm. te ambulance yi kat ndekete da ngay fay boo dëkkee fu ci mel ni guy faatu may ga fële ca gannaaw mhm. euh, ñetti mbaar mhm. war fa indi ambulance di nga fay lu seer yooyu lañ wax tey jii tawat yooyu nees ko war a saafara ci seen wu gis-gis waaw bi lenn rek la Babacar nous déglu les véritables acteurs mooy ñi nga xam ni ñu 5 h wala 4 h du matin bu ñu xëyee hôpital la ñuy dem balaa ñu fay par yenn 18 heures wala ñu fa. ñi nga ne tey jii gëm ne nit ñi dañu faju mais tey capacité euh, nombre de lits dama lay wax exemple xam nga ñu ngi wax ay politique ñu ngi construire ay hôpitaux man de dans le budget du ministère de la santé ci année yi passé bon ministre quatre hôpitaux dans le budget et la plupart bu ne inscrit c'est des dons yu jox parce que des hôpitaux coloniaux ñoo fi am muy euh, Dantec yeneen hôpitaux pratiquement des bailleurs ñoo leen subventionné Albert hôpital pédiatrique chinois qui ñoonu ko may saoudien yi boo demee esp euh, nu mu teeti Pikine euh, bu nekk ci camp bi espagnol yi la nga dem même dans les régions que ça se voit Ziguinchor ou pas mais maintenant pour loolu mën a am tey ji il faudra que ñu mën a def une orientation budgétaire c'est-à-dire que l'argent lu mu bëri bëri nañ ko orienté fi muy priorité priorité yi c'est quoi tey mënuma concevoir nga nga nga nga nga ni dem naa am financement pour benn hôpital bu bees ma war ko yóbbu à Saint-Louis or hôpital régional de Saint-Louis actuellement dafa nekk ci ay difficultés bu nekkee ci ay difficultés fonctionné wul nan ngay construire beneen hôpital même erreur bi def nañ ko à Jigenshor. Jigenshor amoon na benn hôpital ñu am financement beneen hôpital ñu indi fa beneen hôpital teg ko foofu mooy l'hôpital de la paix hôpital de la paix ak hôpital beneen bi distance bi matul presque un kilomètre léegi ñaari hôpitaux yooyu charge yi non seulement day yokku mais duñu du répondre aux normes la preuve bi accident bi amee à Bignona le centre de santé bi Bignona kenn waxu ko moom moom boo gisee sen salle sen salle seen saal bloc bi ti da ngay da ngay da ngay tit ñu évacuer len à Ziguinchor bi len évacuer à Ziguinchor ñaari hôpitaux yépp amul ben hôpital bo xamné ñu bëgg len ñu mujj leen dugal avion militaire ñu len dakaru fajj len c'est-à-dire amul ben ben ben hôpital bo xamné tay ji amone nga ay moyens pour pouvoir le pour pouvoir régler à quoi ça sert ça veut dire que argent bi ni bi ni bi ni bi ni jël moi je dis tay ji spécialistes yi ñuy wax dafa manquer par exemple dans le cadre de la formation aujourd'hui boo demoon tey jii bu 1500 postes la ñu teg pour des spécialités pratiquement 1000 sont ay étrangers lañ 500 yi kese sénégalais c'est parfois c' difficile pour ñu accès affaire boobu mais aujourd'hui am nañ avantage dans le cadre de la mm. formation de ces spécialistes que ay IFR, yu bëri ñu ngi développé par exemple boo demee Ziguinchor am IFR santé Thiès am na Saint-Louis am na ko mais tey jii le coût de la formation d'un spécialiste bu dee ba peut-être par mois mën na nekk ay 2 millions dans sa globalité bu fekkee ne am nga objectif ak vision nga ni tey pour éviter parce que am période ñu jënd fii ay ay ambulance à presque 9 milliards mais ambulance bu bëree tout azimut ça veut dire que yow ce système c'est basé uniquement sur l'évacuation mais est ce que aussi ni ñi yëngu ci wàllum yaram quelque part aussi amuñ ci yenn saay responsabilité qui ni ñuy euh, toppatoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy feebar ndax yenn saa itam am na ñu bëri ñi nga xamante ne gain bi mo leen gënal dañu dem sax ba bàyyi public bi dem fenen wala nga affecté kenn fenn ñu ne mu ne duma du fa dem. wa mais kok responsabilité kan la ñun de ñun ñu xalaat lool xëñ na légui la rek xalé yi légui am fit bobu mais ñun ban daan génn ñun dañu daan wax ni sax ne pensais même pas à rester à Dakar pourtant man Dakar gi laa judo. mais mon sama premier poste d'affectation c'était à Tambacounda te mosuñu ko xalaat man ñun bu daan génn ñun amuñu parce que peut-être ngëm-ngëm moo taxoon ñu dugg santé quoi. parce que loolu manqué aussi. non peut-être am mais peut-être qui est la responsable parce que boo gisee nit lu loo ko rek mu def ko est-ce que tu jii état mi ngi fexe ba nit ñi bu leen affecté parce que da nga ciy affecté nit mu def prise de service dans une zone ba pare bàyyi ko fa continuer di fayeeku salaire am nekk fii Dakar te kenn du ko sanctionner récemment il y a des spécialistes qu'on a affectés dans les dans les dans les régions qui a qui est intervenu ce sont les mêmes autorités qui leen ñoo leen ñoo parce que amnañ ay bras long am relation à la présidence amnañ nañ relation fenem mais mais lépp responsabilité Macky Sall le président de la République mom liñ koy dégg mu wax waxi santé sax bëriwul ndax euh, bu doon am am rew bo xamni ni kilifa deug waa ñu doon waa accident ñu koy ci accident euh, ci hôpital yi ba mu ba mu ñak bakanam bu doon rew yo xamni da ngay gis ni euh, kilifa yi amnañ nañ sax di nga gis président ba génn wax ci matut metut lu ko jëli dogal outil safara bi ñuy dégg Macky Sall ci wàllu santé sax faf bëriwul. Euh, non non non xam nga xam nga parce que dañ ko gëmloo ni santé santé baa ngi dox xam nga xam nga politique de communication bi ministère la santé di développé boo nekkul ci biir agent de santé rek da ngay da ngay trompé wu. wala nga am malaat il faut nga am malaat pour yenn ko hôpital pour mën pour mën pour mën pour mën a gis pour mën pour mën pour mën a lool loolu. def euh, Cheikh Seck waxtu wenu dab ñu ngi lay gërëm gërëm Georges Déthié job gërëm mbokk ñu top ci subaak légui ñu fat ni ya jité euh, syndicat bi nga xamni moy euh, syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale non la.